aleykum wa rahmatullah mbokk ñu sifir ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax uh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ko waral tey nag yaakaar naa ne xam ngeen ko muy ki nga xam ne moom mooy Jules Baldé Senior di Abiboulaye moom la yàlla sunu borom bi nga xam ne moo mën tey def jële ko fi tey mu wuyu ji boromam ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko taxare ko aljana ñu gis tey Pikine fii gis nga mbooloo gis nga jàkka ji ah la nekk foofu lañ ko war a rendre ko hommage yu mujj maanaam jullee ko ñaanal ko dénk ko boromam di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana lii nag war nañ cee jàngate lu baree baree bari yaa ngi ñu xam ne que jamono bi àddina bu lu muy neex neex neex ah lu alal ji di bëri bëri bëri lu dund bi di neex neex neex ak lu fi mën a em rek moo xam nga am wala nga ñàkk nga man wala mën a di wala mënoo bés dina ñëw lu mu ci mën a doon nga bàyyi ko fi dem wuy ji sa borom kon defe naa mbir war nañ koo rafetal war nañ ko gën a rafetal war na gën a rafet ndax nag àddina amut solo te xam nga bés bi daal du ñàkk ñu ngi ñaan ñu ngi wax dëgg yàlla metti na trop ndax xale la boo nga xam ne mu ngi woon ci làmb di di di ñafe ngir ay param ngir ay mbokkam mais gis nga tey yàlla ndax yàlla moom li muy def xamu ci borom ko bi jaaw xamu ci xale xamu bés bu ko dogal bi jotee mu def ko kon nag yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana il faut ñu dem jël ci ay quelques xalaat ci ay nit ndax gis nañ fi tey waa làmb yëpp daje nañ fi waaw pour wan la ñëw bokk ndey bokk baay waaw gis nañ fi tey ay ay ay niti làmb yu bëri mën naa commencé ci armée mi benn baraag la dëkk armée maa lay nuyu di la waaw sëñ Babacar ñu ngi lay delloo siyaare la nga sigil ndigal liñ bokk waa ah? waaw sigil sa wàll di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal suñu xarit suñu morom Jules Baldé na yàlla woyofal suuf ci kawam yal na yàlla yeesal njéggal ci moom ci barke Seydina Mohamed waaw di ko jaale waa pikin ñëpp surtout ëxlu làmb maa ngi koy jaale ñëpp ñëpp ñëpp waaw suñu morom la suñu nawle la waaw lii yàlla rek a ko sañ waaw moo tax dañuy delloo suñu xel ci yàlla rek. lii tey lu ngeen ci war a jàngat yéen ñi nga xam yéen ci toll ci jeunesse di di di xëccoo ak yu mel ni kii noonu. waaw wax dëgg yàlla lii moom jàngat bu rëy la mooy wan ne àdduna lii may wax rek jàppul kenn ku ko jàpp yaa ko jàpp jàppul kenn waaw dee moom du jaas ci ñëpp ana ñi ñu fi jiitu woon ana ñi ñu gënoon ah Seydina Muhammad gën ku yàlla bind comme moo dëddu àdduna kon. képp ku fi toog rek bénéfice la laay jàpp waaw yal na yàlla jiital njëgal ci moom. kii soq la moom itam yaakaar naa ne waxuma sax Pikine mais defe naa unité wu lamb. di wax sigi sa wàll rek di wax onze yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñu santaat Serigne Touba bu baax di wax ne ki fi jógee taalibi suñ Touba la waaw di waaju baax waaju mënoon sonn jinit xam a waaju xam gëddu doomu aadama. waaju mën a sonn ci nit bark suñ Tuubaa du lim tëdd moo tax mais koo dékk micro fii benn wax bi la lay wax Ayibou Laye amul problème nit koo xam ne day am kersa ci moroomam lu jafe ngeen bokk nit génération ba pare ngay am kersa ci moom doo siggi xool ko loolu yaakaar naa yàlla defoon na ko ci jëmmam te du si ñëpp la nekk waaw kon dañ koy ñaanal rek xam nga fi mu jëm gënal ko fi mu jógee fuuf ci barke yonente bi metti na nag ci biir xol ndax tey daw nañ guddi daw bëccëg lu ñu xam def nañ ko mais peut-être tey yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ko indi ci jamono moo ko soxla moo ko jëlaat te moo ko sañ dañ koy ñaanal suuf sedd ci kawam ak mboolem doomu aadama bu mu fa fekk man benn message rek laay lancé muy que ni moom benn bu góor la woon ci papaam ak ci yaayam nekkoon soutien de famille yëpp di daw dépense di daw guddi di daw bëccëg barki Serigne Saliou Mbacke ndax moom moo fay góor ci kër gi message bi may lancer nag mooy njaboot mu ngi fii mu bàyyi na ci gars yi bàyyi xel soutenir leen jàppale famem ndax tey moo fi nekkoon di guerre yàlla suñu borom jël na ko bu ñu seetaanee famille bi sooxee na ci gars yi teg loxo jàpp si ñëpp nag ñëpp lañ ciy tàllal loxo ñu ngi ñaan na si ñëpp jàpp comme moom jëlee yàlla suñu borom jëlee na ko fi yàlla na fi mu jëm gënal ko fu mu jugee ci barke yonente bi waaw jaajëf. daal ñu bokk yaawu jaal waaw maa ngi sant yàlla bu baax di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant sama ñaari waajur di sant suñu kër yi Mbàkke borom maxi baax laa di sant nag Abdoulaye baax sama waaw affaire bi moom doy na war wax dëgg sax métti na loolu nag Abibulaay moom suñu Abibulaay la ñoo bokk dëkk Pikine ñu nekk ay mbër ñun ñëpp di ko jaale nag Sénégal ñëpp laa koy jaale waaw monde lamb daal maa ngi koy jaale bu baax kañ mujj wax ak moom non wax dëgg sax ñoo déggante gëjël déggante nag quoi wax dëgg sax la ku dee sa bàmmeel quoi xam ne nit yi moom booy wax ma da ngay wax loo xam lu am la quoi gëjoo gëjoo nañ laa ko Kéba kan dama ko woo barki démb mu jël ma ma ne ko foo nekk mi ne maa ngi Pikine bu mu maa ngi Pikine rek sama yaram dafa daw ma xam ne ni mu ngi si Abibulaay ma mu xeet encore waar encore même chose ma tey ñu ne ma na mi est que moom doomu Pikine sax mais gis nga fu mu jógee day ñëw di jàppale mburu Pikine fii surtout man nii su ma amee combat da si jàpp baax te bu ko neexee man ne ne man dëkkuma Pikine kon autorité yi dëkk Pikine ñoom war nañoo mën a taxawu mbëri fii mbëru Pikine yi ndaxte comme lu ko Pape Sarr waxee bu élection jotee mbëru Pikine yëpp la ñuy jël taf lañ seen i kaw ku si am ndog-ndog wala ku si am gàllankoor wala am jafe ñu leen di seetaan loolu rafetul loolu àdduna nit bu neexee nga kon nag moom bu naqaree nga kon nag moom man nag sama wax mënta bëri na quoi maa ngi koy jaale Sénégal ñëpp métti na nag lool nag ndax booy bu ndaw la métti na lool maa ngi koy jaale nag ay waa këram di ko jaal di ko jaal nag papa mag yaayam di ko jaale Sénégal yëpp monde lamb Kéba Kanté moom ñun waa Pikine amuñu fayam wax dëgg sax ñu ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla réussi la ba loo xam ne bëgg na ko si adduna bi si Sénégal ji yàlla nekk loolu yàlla nekk loo xam ne lu ko jégal te mu muurloo ko ndax nit ki moom bu demee ma defal la yenn triangle mu defal ko koo xam ne danga seet ak sa bët kon kooku mënoo loolu di ko di ko sant di ko gërëm man koy sant bu baax di ko gërëm di sant nag képp koo xam ne sonn na si moom comme ku mel ni Ama Baldé sonn na si moom ay ñoom maalo séras ñoom maa maa leen koy jaale bés xam ne lu yàlla tudd kër dara yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yàlla na suuf seet koom si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa si biir ndigal li ñu bokk muy génn àddina Jules Baldé Junior ngeen ñëw ñu si ko denc jébal waaw xanaa di ko ñaanal suñu borom rek mu jégal ko lu mu fi a def tam rëccu lu mu fi doon nekkee daal di ko ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexe tey ngeen di ndaw ndaw comme yéen bokkoon ci ngeen bokkoon métier bu ngeen di yëngu euh, tey ban témoignage nga war a mën def ci moom est xamante woon ngeen yéen ñaar waaw xamante nañ bu baax a baax sax waaw Zil Balde moom xamante nañ bu baax a baax a baax waaw Zil Balde Ama Balde am na lu ñu sekk daal xamante nañ bu baax a baax a baax a baax ndax yàgg nañoo toog yàgg nañoo fanaan ba feebaram bi nii to dox nañ ci daal lu bëree bare bëree bëri bëri mais nag yàlla moom kenn mënu xëccoog moom yee ñu ngi koy ñaanal suñu borom xaree ko àjjana te yeexe ñu rek ci doole Serigne Touba metti na xam nga yàlla kenn mënu xëccoog moom yee ñu ngi koy sante yàlla bu baax di ñaanal ko di ko ñaanal bu baax baax suñu borom xaree ko àjjana nit ku baax la woon xam nga nit ku nit ku dal la woon nit ku am yërmaane la woon te sama waale te xam naa ne borom baax la kon yàlla na ko seen borom defal jàmm daal kattanal ko si doole Serigne Touba yee maa leen di siyaar bu baax. woon naqar muy Jules Baldé Junior nekk ci mbër daan bëri yàlla jël ko ñu koy ñaan yàlla yërëm ko toogal jël booy ñaan ñu gis la sa staff sa papa ak communication di kànjeeg yëpp nga ñëw si. waaw ñuy sant yàlla rek di di masawu ñëpp man làmb ji di masawu waa Pikine bu baax a baax. àdduna nii la rek ku sa bés jot rek nga dem Jules Baldé suñu waay la woon Abibulaay suñu frère la woon waaye lépp luñ ci mën def nañ ko ci tawatam bi yàlla def na yàlla jël na ko ñu koy masawu fameem di ko masawu waa Pikine daal ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale suñu bopp di ko jaale suñu mbokk mbëri ko bokkal amun nga ak moom relation non suma waay la woon suma waay la woon ndeysaan déggante nañ yàggul sax ci ay vocal waaw waaw ku baax la daal ndeysaan ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan suñu boobu xale baa yu kawe comme ni ma la wax rek ñëpp jàpp nañ ci yàlla lii la bëgg ba mu yàlla bu baax a masaw ñëpp nag am di jàmm bi di ko jaale ñëpp di ko jaale njabootam ak waa këram yeeg yëpp di ko jaale waa Pikine di ko jaale waa équipe Fallay Bari di ko jaale suñu papa Pape Diop Basson ñu ziar parce que tey lamb dafa bëri yu mel di ci am des fois mbëri am ay jafe-jafe ñoon nañ leen ketal nañu autorité yi est-ce que mbëri loolu jotul ñu jël ci en compte maanaam jéem xool ñoom ni ñuy taxawee seen bopp pour yu mel ni su amee ñu mën cee def liñ ci war a def ñoom waaw noonu loolu beneen waxtaan la nag dafa fekk ne mbëri il faut ñu organisation rek le fait bu ñu organisation les deux en activité comme li ma waaw ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi bëggee ñëpp jàmm ci ñëpp incha allah. mbër bu am combat ak lu mu tudd sax boo bàyyi ci ñoom defee nañ am foofu boo xamante ku tawat ñun sax ñuy sant yàlla mais am na mbër yoo xamante ni ñu fayewu dafa daal bu ñu tawatee ñu mën leen faj. mais yooyu yëpp mën na nekk mais fi mu toll nii jour Baldé ñu ngi jàppale nañ ko sant yàlla daal mais affaire yi moo metti xam nga toogaay bi metti feebar bi yàgg suñu borom moo ko bëggee nii moom la ko jëlee nit feebar na de dem nit feebaru dem yàlla moom ku mu bëgg jël du koy jël ñu koy jaale di ko masaw ñëpp am di jàmm yeeg ñëpp incha allah. yow itam ñu bëri dañ lay jël faral di jël exemple ci xale yi nekk ci làmb ji ci communication comportement euh, tey mbër yi est-ce que adversité bi bu jàllee est-ce que jotul tamit ñoom ñuy sóor yu mel nii parce que xam nga des fois gars adversité bi daf leen di yóbbu ci ay niveau yu xaw a doy waar daal. waaw mais adversité bi dafa am ñoo bokk ndey bokk baay làmb ji dañuy liggéey parce que loolu fi ne comme ni ngay liggéeyee yaa ngi ni liggéey ñun tamit dañuy liggéey comme li may wax rek sama moom may wax bu jeexee rek mu jeex daal incha allah jaajëf kontaan ci ñu mooy Pikine ginnaaw bi ñu euh, euh, jébale Jules Baldé Junior ñu ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana Keba Kanté bi ñu taxawal nag euh, defe naa mën na ba am na lu bëri lu mën a wax ci ki nga xam ne mooy way lu ji muy Jules Baldé ginnaaw bu ñu la ko jaalee Keba maa la koy jaale di ko jaale sama bopp di ko jaale wa Pikine ko jaale waa di ko jaale waa àdduna surtout xaritam yi ñoom góor ñoom Pape Mbacké ñoom uh, waa pikin daal pour bañ a lim ñoom Pape Sarr ak képp ki nga xamante ni sonn nga ci feebaru Jules Balde Junior ak képp ki nga xamante ni toog nga tamitam di ko ñaanal pour yàlla may ko wér ndax ñun ñëpp suñ si doon wax di si dox dañoo bëggoon tey bés bii comme démb si heure bii niñ doon kafeek moom reek moom heure bii tey fekkaat ko fi mu nekk ci activité am mais jàmm beeg pexem yàlla ak dogalam li si des daal mooy ñoo ngi koy ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge di ñaan yàlla aussi yàlla jégal ko ay bàkkaram te yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe li ma jot a jàng si moom rek mooy man la ma doon dégganteek moom moo ëppoon la ma doon gisanteeg moom daanaka si fanam yu mujj yi si laa ko doon gis mais li ma jàngat si moom mooy dund na feebar bi ak ngor ndax démb bi ñuy tàggoo bi ma naan ko suba nañ am bu vous yàlla baax na la ma wax keroog biñ ko yóbbee hôpital ba indiwaat ko buntu këram ba muy wàcc aussi bañ naan ko suba tamit tam war nañ demaat hôpital yàlla baax na la wax kon jàpp nañ ni mbiram yëpp si yàlla baax na la ko wéeroon waaw mbaaxaay yàlla boobu nag yàlla na ko wallu tey yóbbu ko si àdduna ñi gën a kawe di waxaat encore waa mondu làmb ak waa Sénégal ñu gën booloo gën a doon benn pays dara la bi ñuy wax nañ koy jëfee di ko doxee di ko dunde ndax am na yu bëri ya nga xamante ni ça fait mal au cœur ndax ñun tey ñaan nañ yàlla si lépp li nga xamante ni doomu aadama moo ngi si mel ni ñun ñu ànd seeg moom mais dañuy dem ba ci biir dañuy gis ya nga xamante ni lépp dañ koy wéraat si ndogalu yàlla ñu di ko sant suñu borom mais bari na ay affaires yi nga xamante ni waroon nañ ko mën di éviter te di ko moytu surtout. mais Kéba tey luy problème am tey ak waa Pikine wala sax waa làmb parce que boo jógee fi nga dëkk parce que ku ne xam ne Pikine du sa gox mais dégg nañu ay Pape Sarr ay ku mel ni Bathie Seras xam ne moom tamit nit la ko màgg ci wàll bi mu féete ci Pikine ñu taxaw wax yow sa taxawaay ci biir pikin ak ci mbër yi ba démb sax dégg naa bi nga fiy mujjee indi nga fi xaas bu bëri ak li nga xam ne mooy pousse-pousse la bi muy toog yu mel ni ki noonu. waaw xam nga tey doomu aadama moom Jules ku xam-xam ne rek dafa baax dafa yaru loolu la ko àdduna yëpp seedeel tey si kii si gën a ndaw ba ki si gën a mag koo ci tàllal micro même seedeel la lay wax àdduna nekkatul affaire u Pikine nekkatul affaire u ginnaaw raay nekkatul affaire u géejawaay ñun ñëpp ay sénégalais nañ suñu génnee senegal ñun ñëpp ay nit nañ ñun ñëpp aussi dafa am lu ñu boole tënkuñu muy lan muy jëf bokk di jëf si li ñuy yëngu moom si làmb la doon yëngu ñun itam ay amateuru làmb nañu ñëw di ko seetaan muy bëggal xolu nit ñi kon su demee ba naqar topp ko ñun dañoo war a jug wax ci dox si te du man kese ñu bëree bëri bëri la la nga xamante ni tey ñu ngi si doon def te yàlla tax te def te yàlla tax boobu ñun bëgguñu woon sax mu nekk la nga xam ne lu nit ñi di yëg la mais dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana parce que looloo fi des ndax tey jii mënuñoo témoigner lu dul lañu xam ci moom muy yar ak teggin yéen itam ñoo leen si ñoom ngi leen koy jaale ndax gis nañ liggéey bi ngeen si def wax ngeen si wane ngeen ko pour nit ñi jug nit ñi jug yàlla jël ko kon dañuy delluwaat encore santaat yàlla suñu borom te di ñaan yàlla lu mel ni gëj fi parce que monde làmb aussi koo si laal rek moromam moo ko yëg waaw jërëjëf merci moo frère waaw